salaamaaleykum mbokki internet yi salaamaaleykum mbokki Ngor ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a di leen ziar di leen joxaat seen wàccuwaay bu wér a wér gannaaw démb bañ fa demee fële jàmm gën fekk fa doomu jàmm gën tey ñu ñëw leen fii Ngor fekk fi doomu Ngor muy Feugeula bu Ngor muy wàcc journée bu rëy muy le 31 décembre journée fête journée Noël nga xam ne taxawaalukat yi dinañ ci xam seen bopp tey ñu ñëw seet si ko moom Feugeula gannaaw bi ambiancé box ñu fas yéene wax nag diggante ma doomu jàmm gën ginnaaw bi ñu ko bàyyee mu nuyoo foog la nuyu naa la. bisimilah jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jaaraama Cheikh Rafal. bi ñu sant yàlla di jill si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaani waajur di ñaanal kullu waajur képp kuy waajur muy góor ak jigéen di la ñaanal nga yàgg fii. di sant suñu sëriñ sëriñ Cheikh Roxee moom borom ndigal Fall. di sant waa Ngor gépp Waxaam Yoff Almadi Trawo fukki penc ñaar yëpp tund lébu yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm mbaaw bari ñi ñëpp ndax woote gars yi ñëw loolu yombul yee bu ne ngi bàyyi sa temps lépp ñu ngi jégaluwaat ñëpp di leen santaat di leen gërëmaat te di wax ne lamb ji làmb lébu yi la du man maa ko moom fëgg la lébu yëpp ko moom parce que booy bi dafa wax ne man faalewu ma lébu yi dinaa ko wan ne doomu lébu bi gën a xeebu bi gën a tuuti dina ñëw dóor la dóor yi metti daan la bu soobee fëgg la nga dégg démb li mu wax nee na lamb ji li nga si am lépp mooy wax at fecc nee na bu jour li fay neex lépp moo koy def waxu boppam lay wax waaw ndax affaire bi ñu ko setaanee mooy loolu dafa mel ni sax genre kon tuur yooyu noonu rek tuur yi jigéen di def. tuur tuuru mbaxal yooyu noonu. ay sept personnes fa newoon huit personnes. kon kooku dëkkam amuñu su moom courage ku ñëw ngor xool na waa ngor génn nañ te ni ñu koy defee si man noonu lañ koy defee si keneen ak keneen. démb jàmm gën yëpp génn wuyu si ko. loolu tour de famille la mooy lim la wax rek dama bëgg nga déglu ma fukk pencee ñaari ñoo xewle lébu gi ngor waxaam yoof almari tarawo ba barñi ba tubaab jalaaw ba yeen du pour doomu jàmm gën ñun newuñu fi pour moom sax amaana dafa am si suñu jógee rek bari seen Cheikh Fall nga jóge si defe nga jël doomu jàmm nga am si ay victoire la toog si ay dynamique de victoire déggoo lim la kooku tey la laal laalaake xeeru géeju la laal barki Serigne Bamba ay soxoor lam kaa dóor ba mu ay lan ay kaa dóor ba mu yàqu ma door ka daan kooku ñëw rek daan yomb na ay soxoor lam kaa dóor ba mu yàqu ma door combat bi seen ren si fëgg la ñëw samp jaaga xeex dina am lépp dina am lépp moom na li ñu ko digal nga xam ne ñun ñu koy waajal ñun pare nañ si côté yëpp di wax ne làmb ji Maysa borom Seras kooku depuis Mbapat ñu nax moom Maysa kooku sunu ndit la barki Serigne Cheikh Fall Maysa sunu ndit la ku baax la dañuy xew la lu mu mënta doon day teew kooku sunu ndit la maa ngi déggante kees bi booy di def foofu noonu mais ñoom duñu ay bandi ñoom nañ def tekk rek am na fuñ daje dajewaat yéen ñu yeru jox ñu cër kon ñoom nañ def tekk rek Balla bi dina régler compte boobu yëpp na ngeen réglé. réglé ma ne compte bi di nga ko réglé. tous ñoom ñëpp dinaa leen réglé. waaw barki Serigne Bamba. yaa booy mbër ziar nañ la kontaan nañ tey si si open press bi macha allah am na ambiance lépp a ngi ci biir macha allah ah di la ñaanal ndam rek macha allah mbër man moom dama lay ñaan dama lay ñaanal ba pare doog a ñëw sama question yi di la ñaanal yàlla may lan ndam kon niñ ko daa defee ñëw garage fees del waa Ngor ñëpp génne te xam naa ne tamit waa Ngor ñëpp ñu si ginnaaw mbër question mooy lan dama lay laaj comme que dangaa demoon euh, fii ba Maroc euh, dem utaat doole defaraat euh, taxawaay bi parce que si defet nga jóge ñu lay ñaanal bii xam naa moom tey indi nga doole mais ñu ngi lay laaj yow tey noo préparé combat bi waaw loolu nice loolu tontu bi yomb na man sama dem Maroc bi yee du du pour man maa tax ma dem man ngor ñoo tax may sonn lébu yi barki alxuraan ndax ñun làmb amuñu si dara mais ñun lébu yi ñun sagal sagal lébu yi moo ñu tax a dee du ñu tax a sonn làmb dañ siy def ay millions. te amuñu si dara ci alxuraani karim saxal lébu yi moo ñu tax a jóg moo waral ñuy génn di dem di sàkku ji loolu noonu yee di woowaat ñëpp di oo fukki pencee ñaareel di wane ñàngoor te sama waay la ñàngoor sunu waaye la sax laay wax ak nit ci guddeem yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm yee di wax ne autorités yi ku si mel ni daa doomu Farba Ngom moom bu ñëwee day jël 10 bologu billet ñoom Baye Boris Alpha Diaw xam nga président bi monsieur Ndour ñu ngi koy woo bu baax ñëpp ñu ngi woo ñëpp monsieur le maire Mama Gueye Amadou Gueye at yi ñu ngi woo ñëpp xale yi seen fukki dërëm cent franc juróom dërëm loolu ñëpp yiitoo nañ ko ndax loolu mooy suñu barke ñun depuis ñu tàmbale ba léegi si loolu la ñuy demee amaana képp ku ñëw rek dañu see fekk see leen si ñoom combat bii nii lan nga ñu mën a wax jour ba li nga fay indi li nga fay neex waa jour ba li fay neex lépp xam ne ne lébu yi ñoo koy def parce que on est les nobles c'est nous les lébu les nobles jën wa bees firaam ne nag fans ñu teel a pare waaw parce que dañ bëgg a teel a dem teel a libéré gan gi ñëw lekk suñuy ginaar taal suñuy pitaar. lan ngay wax promoteur bi. promoteur bi di ko wax mu pare rek. waaw mooy loolu mu teel a pare xam nañu dañuy ñëw feesal foofu noonu mooy loolu sëñ Mara mooy loolu moom suñu mag la suñu lépp la borom ngor waaw ak kilifay ngor yëpp ñi fi ne di téye kurus waa kër waaw waa kër Sérif wóolu na ñëpp ay dara ay dara yëpp képp ku ne ngor di téye kurus ñu ngi lay gën a sàkkuwaat ñaan di la gën a tàllalaat loxo. di wax nañu ñun dénkaat nañ la suñu bopp waaw. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bu baax a baax Feugeleu bu Ngor euh, Al Amine journaliste Ngor TV 1 Média ñu koy jaar bu bëri bëri euh, Feugeleu tey nga jóge woon li nga xam te ne mooy defet euh, ku xool sa bët yi xam ne gën nga nalaw dafa mën ni dafa ragal danga ragal sa waay moo tax nga dem ba fi nga xam te ne mooy Maroc uti doole uti mas ñëwaat. déggoo ñun ay doomu gaynde lañ billaahi wallaahi wa taalaahi bu dul man. bërëb bi taxaw booy bu ndaw bi bàng boo ko joxee doomu jàmmagan mu xeexax moom duma ko daan ko mais maanaam waaw li waral ñun sax sañu ñuy nelaw mooy li bootu suñu ginnaaw muy tund lébu ñun loolu tax ñuy sonn barki alxuraani karim mais pour doomu jàmmagan moom moo gën a xam li xew moom xam na ne bu abi sifflé yee foofu nice lu fay am maa koy def bu abi sifflé foofu nice lu fay am maa koy def su ma ne koy toogal mu toog su ma ne koy taxawal mu taxaw góos mu jaar góos moom Mara Moustapha Sy Ndiaye bu arbitre sifflé su ma nee taxawal nga taxaw toog nga toog te barki Serigne Cheikh Fall borom ndigal a daj lu métti. ñu gis na tamit euh, ki nga xam te ne mooy sa adversaire moo njëkk a bëri arène te moo la gën a jege li nga xamte te ne mooy arène nationale noo waajalee say fans. fans yi nii nii yow gis nga li xew di owaat ñëpp waa ruuñ bi safli mafli mafia bi tarkindaayar ñëpp. mais nee na moo la gën a miin arène nationale. waaw kooku ay waxu boppam la maa ngi dégg maan ay mbayaar ay carte babi affaire yooyu noonu. lamb la de du affaire de ay mbayaar ay dem jouer teg wecci dem lamb la ñafante rayante. jàmm du am ba lamb ji jeex. booy jàmm gën la tamit. dégg nga la wax kooku amul dara jàmm gën maa nga fa ëpp mbamb téeméeri junne yoon. loolu depuis li fi ñëw rek tey li ñëw rek jóge jàmm gën moo ëpp li newoon si open maa ko fa ëpp mbamb téeméeri junne yoon. bàyyi faal bi nga waxal juddoo fa nga ne bàyyi faal bi ngay waxal. kooku dafa am nu demee sax. billaay. woote waale. waaw di wax ne waaw comme noonu rek maa ngi woo waa kër Cheikh Modou Moustapha Fall yëpp. waaw sama wasila Serigne seex borom ndigal Fall gaynde xel xelkom maa ngi koy woo di woo njaboot gi ñëpp maa ngi woo ñëpp waa kër Cheikh Modou Moustapha Fall ñëpp di leen wax ne bës bi seen bés la. sama yaay añaa ndëg kooku sama yaay la añaa mooy suma yaay man man añaa moo ma jur te di ko wax ne suñu raq ji siinu wàdd duñ ko mas a fàtte di sàkku képp ku ma dégg rek nga koy ñaanal ak ñi ñi fa ne ak ñiñ fay fekki suñu borom yërëm leen te xaare leen arjanay firdawsi barki Serigne Sefal kooku dafa doon suma yaay joo xam ne ku sori si man la may santaat ngor waxaam yoof ñëpp sama gars yi ñoom Abu Sita gars yëpp vëdde biir ñëpp Sidi Bouya Pance maa ngi sant di gërëmaat ñëpp wax ji moom jarul muy bëri fi mu toll nii jëf moo des góor bu waree jëf warul wax wax ju bëri amaana waaw si journal bi foo ñu wax rek jaale la kàddu yi mais ñu ngi koy jégaluwaat bu baax di leen jox rendez-vous nag di daje bës ba ñu ñëw def ful ak fayda jël ndam na ñoo taal suñu pitaar wasalaam jaa ngeen jëf